kii jaan kii fata jaan jànneel kepp yéene mission bi jot nañu ko baral bu ñu bàyyee ba marax rek bu sotti nañ ko sottil tey nañu ko sottil tey yapamayız. black. mots pour le dire arrivent aisément, nécessairement. Et... ndaw koy dig ma fekk si sa yoon mu ngi nii koo reexoo xëy góor saa ngi nii góor su ñuul la dégg am ay faas ak bët yi sew xam nga ndey fii ndox mu set muy rey yoo dina nekk barrage barki fapes ndeeras foroog barki Fapes dinaa nekk barrage bu ma seetaanee kii rey doomu jàmbur ji lu saltige yi raxasoo maa ko na fuj naa. bëgg lépp lu ma leen wax

déggoo ko maman Madiam gis nga sama wutum appartement boobu maa ngi ci ba tey fi toll nii nag damaa nekk ci wut waaye bu ma gisee li ma gënal dëgg le même jour laay bub samay bagage yi dem sama yoon yoo xam fenn nga demul yoo xam xanaa déggoo ma yow may nga sama jàmm yoo xam ne fuyul yow lan moo daal Madiame yow la war a wax lan la lan moo xew lan ngay yuuxoo xale bi gis nga xadim magam jëmm la xam na lu baax xam na lu bon na njëkk tey na mujj tey bu ko yuuxooti bul yuuxooti sama doom Madiame yow laay wax bul yuuxooti sama doom laa la wax Faty du sa doom sama doom la man est nga ma bu baax yow Penda yow lan la Penda man ngay waxal eh waaye ndaw Samba waaye mboota xam la ci dégg ba moom mii nuur ba ca ban ba man mii maa ne woon yàllaa tifi danga fàtte xam nga lan laa lay bëgg a xamal mu dugg ci sa nopp bii nii Tafa Sarr mooy sa doom Xadi Sarr mi man maay yaayam boo bëggee doom bu jigéen boo teg di ka yedd dangay dem jëli sa doom nag tarkal la am nga ko moo gën nga bazarde ko ci mbedd mi ñoom ñu koy yàlla yàlla ne ceebu mbootaay lii de la ma si tafa indil sëri ci Brésil xam nga bale bi lu muy tekki ah si ci français la wax ak yow du bale xam nga lu muy tekki ah nee na nga génn dem ci biti Ya, hmm? eh anam papa ñëw na ah oui namoon naa la de. xamante nga sa dégg-dégg si tafa wax na waaye man nu ma neex laa koy déggee mbalit lañu génnee ci kër waaye du bale comme man nag bale laa dinaa defar dinaa setal dinaa taxaw te dinaa taxaw njaboot gi léegi sax defante bi ci lu baax laa koy teg góobe lu nekk rek dinaa ko gar incha allah ay ñoo dem fan nga jëm nii. man damaa bëgg kër ga. waaw damaa bëgg nga moytu ma si ndax woyu la bandi la capable na lu ne. lutax nga wax lolou papa. fi ñu tol mënu ma la wax dara dama bëgg nga moytul mako rek. TMC day fi TMC dal, lañ def heure ko rek ñu def ma TMC. defi soxla. ndey la soxla. ndey fili. ndey fili liggéey bu ndaw kese la lay doyee benn liggéey bu gaaw. dadaa man xam nga ni seen yooyu noonu ma nekkatuma si ay affaire yu teg di yooyu ak njuuj njaaj ak dugg ak génn loolu nekkatuma si doxatuma si sax loo xam nga loolu bu baax. su may wax ba ci yàgg maanaam tekk di ma déglu dama may say nopp gis bu la yàlla may opportunité. maa bëgg nga koy exploité di compal sa bopp di ñu compal bu ko nekkee bu yàggee sax mu nekk compaloo. Oh. <laughs> ada maray. ndey fi li liggéeyu clinique la wutal. clinique dadaa mën lu wut ci clinique da laa def ci allah nabu sama cat ak sa catu morom nabu sa xeetu bind. ñu la yàlla la yettee rek macha allah na bu nga war a sëgg di fa beere boo sëggee xam nga rek say xorte yow <laughs> paa bi moom bi romb la na bu dara xëpp xaalis facilement bés dina ñëw dinaa la expliquer affaire yu bari dëgg la bi may dugg ci yow bëgguma la woon raison yi tax jigéen di sëy ak góor nekkul woon sama diggante ak yow mais nag avec le temps j'ai appris à jàng naa lu bari ci yow te man leer na ma ne ba ma dalee dund ak léegi tasew ma ak nit bu la gën gisaguma ko mais dama bëgg nga xam ne dafa benn liir judduwaalewul ak iñaan nit ki ni mu mel rekk c'est parce que ci société bi muy dund moo tax ñoom ñoo ko ko meloo sikk naa torop te nangu naa ko mais dama bëgg nga xam ne sikkaluma sama bopp Ndefli gis nga àdduna démb la tey ak ëllëg soo nekkee ci tey nag da nga war a xalaat suba lu am solo gis nga kilo jiitu ci néeg bu ndam moo lay wax fi ngay toog ba tax na sama papa lépp lu mu mën a wax ak lépp lu mu mës a wax respecté naa ko man noonu lay fonctionné si ndigal lay dox kon donc sama papa lépp lu mu wax dinaa ko def donc lañ nekk ci jàmm ñu bañ a andiwaat leneen parce que li passé passé na des ci passé li nekk kanam moo ëpp solo foofu.

safaana nga fa génn. voilà. ok. Absa. dama bëgg ngeen abal ma fii benn ordinateur. dafa am document bu ma yor dama ko bëggoon a fii. ordinateur. Euh, xaaral ma jox la monsieur docteur comme ça nga nekk ci biir ci gën a nekk à l'aise. d'accord. ok ñëw ñëw. jamandooy jox ma foofu benn darab ak ñaari njegenaay ma dem lal ko si tafa ci man laay tey yow xam nga ko yabaate nga ndax yabaate weesuwul yow si tafa bu ayee si yow man lan mos sama yoon du danga ne jeeg nga mën nga wuti ci sa yëfu bopp jeeg day matle Madiama mbaa xam nga ni bu ku nekk yamee ci li mu moom yow dootoo dese dara yow Madiama mbaa xam bu nekk yem ci li mu moom yow doo dese dara est-ce que mën naa la poser question nga tontu ma si nag ak sincérité. xam nga yow xam nga sama papa si Tafasaar bu baax. sa papa waaw. liggéey ngeen te yàgg nga ak moom donc mën naa ne xam nga ci moom loo xamante ne ñun xamaguñu ko. waaw. yow ci sa xalaat nga yaakaar ni sama papa na ñëw ne dafa feebar feebar bu grave boo xam ne daf ko nar a fekk amul da ko inventé juste pour am lu mu bëgg. tu es capable de. te lu mu sañu te def am.

bu mu woote guddi ndax ñoom ñaareel ñoo fi dàq sàcc ay blouson bi neex na si sama couleur mbay la nga continuer li tafasaar laa doon laaj. si soxna si. Ah fait dama ñëwoon pour déposer si liggéey pour fomp. soxna si nga baal ma de mais fii si tafasaar nekk fi bay recruter. Papa Sarr sama mag moo fi nekk te fi ñu toll nii soxlawuñu technicien de surface soxlawuñu ku ñuy baleel nii ku ñuy menaasal nii ku ñuy fompal nii natia o badugu kasofa o oh, oh, oh. piche mu boppam kenn xamul jabaram dugu naa ci yow ba dugu o